Euh, sur cette question Euh, je le dis toujours ah xëy na dafa gën a fees jamono jii nii mais lu jitu seen régime bi la mais malheureusement on n'arrive toujours pas à trouver des solutions ñi leen di critiquer ce qu'ils disent mooy que ne la jeunesse elle est désœuvrée amatul xëy amatuñu solution il préfère euh, elle préfère plutôt cette jeunesse quitter ce pays am ñu dem banaan sax la situation politique actuelle du Sénégal dafay encourager ces départs ndax vous êtes du même avis non je ne suis pas du même avis puisque d'abord li ma bëgg a mooy euh, en tout cas def comme beaucoup de Sénégalais euh, su di en tout cas ñaanal ñi nga xamante ni ay ndaw lañ te yàlla def ñu ñu ñàkk seen bakkan ci ci yoonu géej gi mm-hmm. euh, plus particulièrement seen collègue de Euh, journaliste bi nga xamante ni maa ngi koy dégg sant yi ñu wax ñu ko tuddee Papi Papito mhm. euh, Kara mu doon yëngu ci wàllu en tout cas média euh, nekk ndaw aussi jaar ci yoon wi yoon woowu daal di ci ñàkk ñàkk bakkanam ak yeneen jeunes yi nga xamante ni vraiment ñàkk nañ seen bakkan ci ci yoon woowu mhm. du ma d'accord ak gars yi ci même avis bi pour la bonne et simple raison que migration je pense que du affaire bu bu bees lu yàgg la ci réew mi wax naa ko fi ci benn ci ay plateau yoo xamante ni invité woon nga ma fii ni man personnellement def naa naa cette aventure là mhm. essayé naa ko dans ma dans ma vie et j'ai je connais beaucoup de gens qui l'ont essayé depuis boobu je ne le président Wade n'était même pas président Wade n'était même pas Sénégalais yi bi ñu koy miin xëy na 2004 2005 2006 boobu jamono yu métti woon na li indi sax mu fës aujourd'hui mooy tey la technologie a évolué. Mhm. Euh, les médias ont évolué tey l'internet elle est là donc euh, pour que nit ñi xam li xew ci àdduna bi xam li xew ci surtout ci ci secteur boobu euh, dafay nekk loo xamante ni lu lu yomb la. Mhm. maintenant dafa am loo xamante ni xëy na du ma ci d'accord ak ñenn ñi mais mën naa d'accord ci benn benn affaire mooy que nos gouvernants avec surtout. pour parler de l'Afrique parce que ce n'est pas une affaire euh, du Sénégal simplement soo demee ci sous bi beaucoup de de pays am na ci sax dëkk yoo xamante nii pour bañ leen tudd aujourd'hui dañu may difficulté d'enseignants parce que seeni enseignants yëpp daw nañu dem mhm. euh, mam yi dem ci ci dem wuti une veille meilleure loolu nag li ko indi mooy mais au Sénégal aussi on parle d'étudiants yoo yoo xam ne ñu bëri ils ont fait le jàpp ne université def ko ci en tout cas lu ñoŋal ndaw ñi lu en tout cas créer les conditions yi nga xamante ni ndaw ñi mën nañ ci mën a am ce qu'on peut dire euh, l' emploi et l' employabilité des jeunes loolu lu ñu natable bat malgré que des na mhm. des na lu bari mais dafa am benn aspect boo xamante ni nit ñi dañ koy dañ koy dul bàyyi xel le président Macky Sall et son régime euh, dañu hérité de trois générations la génération de 1976 muy suñu catégorie bi mhm. la génération de et la génération de et la population du Sénégal a fortement augmenté aujourd'hui on parle de 18 millions euh, d'habitants mais sur... millions d'habitants justement on est donc on est 18 millions d'habitants et c'est sur ces 18 millions d'habitants mënoo ci am de ces 18 millions d'habitants là ñëpp nekk des jeunes de moins de 35 ans mm-hmm. donc loolu dafa nekk une situation nouvelle qui est là maintenant le président Macky Sall bi mu mi en am na lu mu fekk le président mag Ablaye Wade tàmbali ko mu nekk les infrastructures am lu mu ci def lu am solo. Mhm. le président jàpp ni aussi étant un bon économiste xam na ni les infrastructures dafa nekk aujourd'hui benn pousse benn en tout cas mbir boo xamante ni dafay dafay soxal lu war a mën a booster l'économie du Sénégal mu yokk ci loxoom dafa defaat ci ay jéego yu am solo xëy na ak euh, projet yi nga xamante ni le président Macky Sall taxawal na ko mu jëm ci sur le plan le plan Sénégal émergent mhm. tënk ci ay mbir yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu ndaw ñi lu mel ne xëyu ndaw ñi entre autres ak yeneen organes yoo xamante ni mettre na leen en place pour ñu mën a jàppale ndaw ñi ci wàllu financement yooyu mbir bu yàlla dogalee mu commencé en tout cas prendre de la forme je mais mu mm-hmm. commencé en tout cas indi ay jeexital yàlla mën na dogal ak situation bi mën a dem mais beneen bi ci des te fi ñu ci war ci war ci focaliser wu mooy ñu xoolaat suñu suñu enseignement suñu enseignement war nañ ko xoolaat pour adapter ko ak aujourd'hui la nouvelle donne mondiale ak li nga xamante ni moom la àdduna bi laaj surtout nag travailler sur l'industrialisation de notre de notre pays loolu moo mën a permettre au moins le Sénégal mën a réserver autant d'emplois pour la jeunesse parce que du jeune yëpp ñoo mën a dem ci bureau yi du jeune yëpp ñoo mën a dagg garab